voilà c'est ça tout so ñett yi rek dafa mel ni Khalifa Sall na dafa mel ni génn na Khalifa Sall génn na mi ngi noonu mi reste à savoir ndax dina yegg mi ngi noonu Khalifa Sall génn na di dox mi ngi noonu di génn di dox mi ngi génn. voilà ndey réew Khalifa génn na ñu xool ndax dina yegg ñu xool ndax dina yegg génn na. ñu xool ndax ñu ngi doon di dox di dem ñu ngi doon di dox di dem léegi réew Khalifa Sall mi ngi noonu ànd ak le maire Madiop Madiop noonu Madiop dafa ñëw ndax génn dafa ñëw na leen génn leen ñu dem dafa ñëw na leen ñu génn dem ñu xool président bi ndax du ay taw lay mujjee ñu xool ñu xool ñu xool mooy ndey ginnaaw li mu la wax police taxaw na seen wet police taxaw na seen wet ndax du ñu dóor ndax du ñu ndax du ñu dóor en ndax du ñu dóor na leen taxaw leen nee na leen taxaw leen waa ji mi ngi yëngal nee na faut pas dépasser faut pas dépasser faut ngi wax ak moom mi ngi wax moom Mbodiop Mbodiop moo nekk noonu ndax du missile ndax du missile du ñu armé ñu ngi armé ngi waxtaan ñu ngi waxtaan négociation yi la ils sont en de négocier El Hadj gars négocier Cheikh Gueye Lassène El Hadj gars yi dañoo génn pour dem mais tal nañ fële tamit mais ñu ngi négocier ñu ngi négocier mi ngi doon dem xalifa mi ngi doon di dem ñu koy téye xoolal waa ji mi ngi préparé ils sont en train d'armer ñu ngi armé xeeru bopp door na door na door na dooraat na dooraat na dooraat na dooraat na dooraat na dooraat na jolli na dooraat na xalifa mi ngi naan la kuréel bi oh! door na ma ko Xalifa dugg na si otam dugal nañ ko si otam dugg na ba commencé na fii commencé na commencé na waa kër Xalifa Sall jàmmarloo ñu ngi door ñu door dañuy daw téléphone bi daa daanu Khalifa Sall mi ngi noonu dem na mi ngi noonu dem na ñu ngi jaamaarloo ñu ngi jaamaarloo ñu ngi jaamaarloo ñu ngi si permanence Khalifa Sall bi Khalifa dafa génnoon pour dem gars yi door ko lacrymogène ñu dugal ko soto bi ko nañu xool fu ñuy mujjee fu ñuy mujjee fu ñuy mujjee fu ñuy mujjee ñu xool fu ñuy mujjee ñu xool fu ñuy mujjee gars yi door nañ leen lacrymogène ñu dellu door nañ leen ñu dellu xam naa dañ doon bañ ñu jàll fi dañ doon bañ ñu jàll fi dañ doon bañ ñu jàll fii gis naa fi ay binagar gis naa fi vinaigre ma delluwaat na ma delluwaat <coughs> gars yi renforcé nañ sécurité bi fi ko bi évacuer nañ leen côté bi xaaral ma aw noonu coupé ko dugaat feneen ma dem xool yi ñoom nu ñu mujjee ndax dañoo dellu seen kër stratégie la gars teg nañ delluwaat xool nañ delluwaat ndey ji réew mbaxayin mbaxane ni mbaxane naaw na mbaxane du fekkee coono borom nañu jéem a dem wala day ji réew jàkkaarloo nañ jàkkaarloo nañ jàkkaarloo nañ jàkkaarloo nañ door nañ ko ci biir permanence bi door nañ ko ci biir permanence bi jàkkaarloo nañ jàkkaarloo jàkkaarloo nañ ñu ngi door ñu ngi door nee naa la mbàccum gerte la ñu ngi door ñu ngi door ñu ngi door policiers yeeg policiers yeeg dem ñu ngi dem ñu ngi dem policiers yeeg dem ñu ngi dem eh, eh, li mooy toog sa biir oto di dóor waaye baa duma la koy visé baa duma la koy visé baa duma la koy visé baa duma la koy visé visé na ko dóor na ko day jërew permanence bi saxaar na permanence bi saxaar na waa ji mu ngi wàcc ay waay bul wàcc door nañ ko xeer bi xeer bi dal na ko policier bi ñu ngi avancé ñu ngi avancé booy yaa jokkor maa joxor leen dégg nga booy booy yaa ngi naan woo oh. mi ngi dem mi ngi dem eh eh fu mu jugee policiers yi dem nañ policiers yi dem nañ day jëlaw day jëlaw bi li fi nekkoon ci jigéen bari na li fi nekkoon ci ay maire bari nañ ba léegi permanence bi li fi nekkoon ci nit ñëpp daw nañ la moo nar xew ci biir ci biir mairie oh xalaat naa mairie xalaat naa mairie xalaat naa mairie da jëlaw rek ramaseli kon ca kaani kon kaani mais gars yi seen stratégie dañuy door avancer tas euh, people bi mais permanence bi li fi nekkoon si jigéen bëri na ñoom ñëpp daw nañ ci biir dugg nañ ci biir sécurité bi saam am na ñu dem léegi réew léegi réew la a xew ci biir la moo xew ci biir at maire yi stratégie la policier yi teg mooy toog seen biir oto di dóor oh Ndeye Diallo maire yi maa ngi leen di gis ñuy sëqat Ndeye Diallo maa ngi xool ci biir maire yi mi ngi ci biir dafa mel ni booy dugg nañ ci ruq yi mu demaat feneen mu coupé waat mu coupé waat dajëréew permanence bi oh dajëréew maire yaa ngi jooy permanence bi permanence bee ngi permanence mais gaynde permanence bee ngi mais gaynde gaynde yaa ngi direct Rak Tak TV looy wax ci lii looy wax ci lii o oh bu paree ñu pare nañu ba pare nañu roy. ah on est des républicains et on reste et on demeure des dara ah oh Seydi. c'est désolant. c'est yaay booy loo wax. dem na dem na dem na. dañu réew nañ dugg si permanence bi xool. permanence bi dañu réew sapeur bu munee ñëw fii ci permanance bi noyil noyil bu baax noyil. dajaraw ak gënal ah dajar sapeur. xaaral ibbi leen dul dajaraw ñu nekk fii war nañ génn ñu nekk fii ñu nekk fii nañ génn. Eh? sapeur sapeur <coughs> sapeur sapeur su mu nee ñëw fii. sapeur su mënee ñëw fii ndey ji réew ci biir am na ndey réew maire yi nekk ci biir foog ñu génnee leen maire yi foog ñu génnee leen foog ñu génnee leen foog ñu génnee ñi nekk ci biir foog ñu génnee ñi nekk ci biir foog ñu génnee ñi ci biir sapeur su mënee ñëw fii dina baax. yéen li nga xam ni arrestation yi nga xam ni boobu ba léegi euh, ñi ngi koy nemmeeku mi ngi continuer euh, rawatina ci côté leader yi ak ci côté ñenn ñi nga xam ni ay euh, candidat lañu parce que. arrêté nañu ki nga xam ni moo di Anta Babacar Ngom on nous signale que arrêté nañu ki nga xam ni moom moo di madame Aminata euh, Touré on nous signale aussi tamit benn militante euh, Anta Babacar Ngom boo xam ne dañu daal di arrêté kon actuellement euh, loolu yëpp mi ngi nekk di xew ci terrain bi entre ñi nga xam ni. Euh, ñoom ñooy les manifestants ak yenn ci leaders yi gis nañu ci am leaders yi ci bare bari wàcc nañu ah, comme ni ñu ko waxee woon démb euh, ñëw nañu honoré li nga xam ni moom moo di seen parole euh, vraiment daal di attaqué décret verbal bi nga xam ni kii lee di njiitu réew mi président Macky jël na ko muy xool naka lay ajandee li nga xam ni moom moo di élection présidentielle mais li ci am des rek mooy que ni ça reste parce que ëllëg incha allah foofu la ci assemblée foofu la yëf yi di euh, gën a euh, kiwee ki nga xam ni moom moo di laal euh, la voilà comme ni nga ko expliqué rek en tout cas mbir la boo xamante ne nii pour l'instant doy na waar lool par rapport ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy leader yi mais en tout cas lu munti xew rek ñun dinañ leen toppal information yi ngeen pour ko am en temps réel actuellement ni côté liberté 6 extension pour l'instant gars yi ñu ngi continuer di yëngal foofu en tout cas ak lu munti xew rek nañu jàpp ne fu mu toll nii gars yi may may euh, parewuñu sax pour bàyyi ndaxte côté bu ñu baaree bañ ne noonu la rek dañuy déplacé wu dem si beneen côté maintenant ñun ñi nga xam ne ñu ñooy def suñu liggéey euh, permettre ñu ñu def suñu liggéey correctement moo tax parfois ñuy gis ñuy contourner di dugg ci li nga xamante ne moom mooy yeneen yoon yi pour mun a jàll mais en tout cas lu mun ci xew rek dañuy continuer li nga voilà donc dañuy xool rek ban zone mooy baax bu ko def defee merci beaucoup su ko defee rek ñu mën a li nga xamante moom mooy liggéey bi mais en tout cas VDN bi moom partout foo jaar dañ ko baare ba pare taal fa ay pneu donc fu mu nii mën nañ jàpp ne yoon boobu moom accessible donc dañuy continuer rek euh, parce que côté côté Liberté 6 bi o côté Liberté 6 bi dafa mel ni foofu Matar ba tey ñu ngi ko baare ah parce que gis naa gars yi taal foofu pono. Ah, ana lay taxaw léegi euh, waaw gars ñi taal pono nag continuer waaw loolu la euh, ji moom temps bi fépp ay tax boo tax Sénégal 7 ñuy wax ni gars yi nañu ko déconnecté parce que dañuy xaar si chauffeur bu ñëw rek ñu yeewoon doxantu si temps bi wan leen. yéen angle de traite même côté rond point bi parce am na benn foule bu génnee ci VDM bi wàcc si côté boobu. parce que la colère noire des sénégalais maanaam jamono jii ñoom am lu leen métti seen biiru xol parce am loo ne day feeñ par rapport yenn kàddu day feeñ des frustrations yi nga xam ne mu ngi feeñ si yenn leaders yi donc loolu yëpp tey ñu gis temps di am fi barricade yenn ñu daal di koy boole am également des arrestations. ki nga xam ne moom mooy Anta Babacar Ngom ak ki nga xam ne moom fi wax ne jamono ji dañ ko daal di arrêté. Euh, ginnaaw mhm. benn déclaration nag si c' est vrai vraiment avéré. waaw non Walf mais moom mi ngi xam leen ni rek. carrément que ni. Abdel. eh xaaral xaaral. ak del ma del ma mataar ah, donc ñi ñu ànd ak yéen rek woy Euh, daanaka euh, tali euh, tali yëpp yi nga xamante ni moom moo jëm ci rond point Liberté 6 rek daanaka tali yooyu noonu boo fa demee rek manifestant yaa ngi fi di taal ay pneu fu mu nekk nii nag fii. ci yoonu camp Leclerc aussi manifestant yi ñu ngi fi woon di taal fu mu nekk nii nag ñu ngi nii jàkkaarloog ak takk der yi si suñu ginnaaw nag ñu gis fa ñi nga xamante ni ñoom ñoo di. Euh, militaires yi ñoom ñooy euh, fay euh, tàkk-tàkk yi instant bi nag liberté si ak li ko wër mën nañoo wax ni que jamono ji euh, tàng na jër jër jër ndax nag euh, manifestant yi euh, ñu ngi fépp si liberté 6 extension bi wàcc fi nga xam te moom moo di devant liberté 6 yi actuellement nag gis ngeen li nga xam te moom moo di takk der yi ñoom jamono ji ñu ngi noonu naka manifestant yi euh, ñu ngi noonu euh, daal di euh, li nga xam te moo di takk der yi donc dispersé nañ les manifestants actuellement nag euh, ñu ngi jéem a fay euh, tàq-tàq yi nga xamante ni moom la ñoo def ci euh, kaw tali bi waaye nag daal di génne li nga xam te moo di barrière yi yi nga xam te ne manifestant yi ñoom ñoo ko fi teg su ko defee rek ñoom seen oto yi mën a jàll waaye tamit nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo soxla dox yi seen soxla aussi ñoom tamit ñu mën a dem parce que nag daanaka liberté 6 moom képp koo xam ne ni nii danga wax ñëw coté bi wala li ko wër rek mën nga toog ba peut-être affaire yi xaw a calme xaw a libre tuuti rek nga mën a ñëw sinon rek boo duggee non seulement sa oto mën na see yàqu waaye tamit nag euh, doo mën a dem ndax fii amul benn yoon boo xam te ni nii mën nga koo utiliser parce que euh, pratiquement toutes les routes sont impraticables Euh, ci suñu ginnaaw ñu ngi gis rek ni que euh, lu jëm ci camp Leclerc rek voie bi dafa mel ni euh, militaire yi daan nañ koy dégager instant bi tàkk-tàkk yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekkoon daan nañ koy dindi gis ngeen tout à l'heure tàkk-tàkk yi ni ngeen ko doon gisee waaye instant bi nag militaire yi daan nañu fay taal bi waaye tamit nag daal dinañu génne xeer yi ak zinc yeeg li ni mel ngir oto yi mën a jàll gis ngeen oto yi ni ñu jàllee noonu mm, gis ngeen oto yi ni ñu jàllee noonu actuellement nag euh, si loole la ñu euh, nekk euh, ñoom militaires yi gis ngeen dégagé nañ li nga xamante ni moom moo di la voie qui mène vers le camp camp Leclerc instant bi rek dañuy jéem a avancé waat rek xool parce que instant fii nii li nga xamante moom moo di Euh, les forces de défense et de sécurité euh, daal di nañu euh, disperser les manifestants donc ñu ngi seen pont Liberté 6 bi nii ñu ngi jàkkaarloo ak moom donc dañuy jéem a avancer xool aussi buur Gédé aussi bu fekkee mu ñuy dégg donc mën nañoo mën na woote rek wax position wam wax fi nga xamante ne nii foofee la nekk ak lan moo fa am. ndax euh, Liberté 6 euh, lu jàpp euh, Liberté 6 gi yëpp ak fi nga xam te moom moo di Sacré-Cœur ak lu jege Liberté 6 jamono ji ay takk-takk kese la. ngeen di gis nii yëpp ce sont des images en direct pour euh, ceux qui disent que y a pas de manifestation ici <laughs> <laughs> pour ceux qui disent qu'il n'y pas de manifestation ici pratiquement dañuy soog a dugg si live bi euh, wala ñu jàpp ni que ay images yu yàgg lañ leen di dugalal mais euh, sachez que nous sommes en direct ici à Liberté 6 euh, depuis pratiquement quinze heures la manifestation yi daal di donc boobaak léegi rek manifestation yi arrêté gul fii ci Liberté 6 ak li ko war jàpp Sacré-Cœur jàppe jàpp euh, Sacré Cœur euh, manifestation yi euh, ñu ngi takkaar naa fe ñu gis nekk ni que am na yenn leader yoo xamante ni nii aussi ñu ngi <coughs> ñu ngi woon ci kaw ñu ngi woon sur le terrain ku ci mel ni ñoom de Fall gis nañ aussi ñoom citizen gis nañ ñoom citizen gis ngeen ñoom citizen ñoom. gis nañ leen ci terrain bi euh, coalition euh, Diomaye président ñoom aussi ñu woon ci terrain bi euh, Déthié Fall aussi moom waccoon na sur le terrain professeur Daouda Ndiaye moom aussi waccoon na sur le terrain moom nag moom moo commencé sax li nga xamante ni nii moom moo di caravane bi avec un convoi énorme ci noonee la daal di wër VDN bi moom professeur Daouda Ndiaye si kaw VDN bi sax d'ailleurs lañ ko daal Euh, lañ ko daal di arrêté donc euh, moom nee nañu daal dañ ko daal di brutaliser euh, daal di koy gazé daal di tamit teg loxo ñi nga xamante ñoo ñee la àndaloon. instant bi nag euh, li nga xamante ne moom moo di euh, benn benn euh, ci askan wi ñi nga xamante ne dañoo soxla dañuy dox yi seen soxla ñoom aussi ñu ngi ñu ngi gis rek ni que dem beeg ñëw bi mu ngi commencé am ndànk-ndànk par rapport ak tout à l'heure nga xamante ne nii instant bi ñu woon dem mënuñu woon dem mënuñu woon dikk oto yi mënuñu woon jàll waaye nag gis ngeen manifestant yi bu ñu taalee ba takk der yi ñëw sànni grenade ba ñu dem rek dañuy daal di dañuy daal di Euh, ratissé li nga xam te ne moom moo di euh, tali bi daal di euh, fay tàkk-tàkk yi waaye tamit daal di jël ay xeex dal di jël xeer yi daal di koy génne si si si kaw tali bi donc devant on va ba tey dañuy daal di progresser rek pour xool ce qui se passe. ko daal mbir yi jeexagul léegi. Mhm. non mbir parce que nekkul lu ñuy ñaan si si biir réew moo un discours euh, de paix de solidarité par rapport ak ce peuple sénégalais ñi nga xam ne ñoom dañu jàpp ne c'est c'est un peuple euh, opprimé ñenn ñoom ñoo koy wax seen seen i kaddu di wax ne c'est entre l'opposition et le pouvoir le pouvoir est là l'opposition est là à chaque moment da ngay gis li euh, si biir réew mi donc di di di ñaan rek li nga xam ne mooy jàmm ji ñi ñaan si biir réew mi mu am ba ki nga xam ne benn doomu aadama bañ see ñàkk bakkanam benn doomu aadama également bañ see bañ dëkk bi si boppam ñëpp bëgg nañ ne mu am jàmm. Mhm. parce que jàpp nañ ne lii baaxul si ñun crise la te nekkul li nga xam ne day wóyal si nga xam ne moom mooy moom mooy suñu askan laal la waaw. Mhm. donc en tout cas mën nañ jàpp pour l'instant ça Euh, et que aussi takk der yi ñu ngi nekk di dégager la voie pour permettre euh, la libre circulation des euh, voitures mais aussi des personnes parce que sànq fii kenn amu fi woon accès actuellement oto ñu ngi circuler tranquillement gis nga sànq ba tey fii yëpp dañu ko taaloon donc ñoom ñëw na ak benn dispositif bu gën a am doole par rapport ak sànq parce que sànq manifestant yi ñoom kese ñoo envahiroon li nga xam ne moom mooy VDN bi mais pour l'instant ñoom dañu ñëwaat en permettre manifestant yi ñu bañ a amal accessibilité ci biir euh, deux voies yi parce que fu mu toll nii gars yi yàq nañ ñaari côté yëpp fële ca Liberté 6 boo xoolee yaa ngi seen euh, fumier bi nële muy ñëw ñoom aussi ñu ngi taal foofu noonu pour pour pour parer foofu gis ngeen équipe bu croix rouge bi gis ngeen leen noonu ñoom aussi ñu ngi ñëw parce que sànq am na ñoo xam ne a jot nañ leen arrêté am na am na ci ñoo xam ne jot nañu am ak tuuti contact ak ñi nga xamante ni yi mm-hmm. xam nga lu gën a garaaw moom mooy euh, jamono jii nii yaa ngi si beneen bi embouteillage la causé embouteillage te embouteillage bi ñu causé nii moom mooy conséquences yi ak ba pare risque économique xam ne ñu ngi koy dund si réew mi nee naa sànq dañu am pétrole am gaz dama wax ne tey service bi dafa am responsabilité bu mu war a joué comme ñun médias yi maanaam impartialité moo tax ñuy rafetlu des bi nga xam ne des fois day seeti opposition di seeti pouvoir pour ñu mën a waxtaan indi indi dialogue ba réew mi daal jàmm bi nga xam ne moom la ñu bëgg euh, ñu ko mais nag jàmm dina leen koy amee parce que président de la république est là ñëpp jàppoon ne euh, calendrier électoral bi respecté wuñ ko parce que su nekkee dëgg rek ñun jàpp nañ ne euh,